seen message soo su ko defee rek ah, dinañ leen ko mën a jàllaleel en direct ah, chat en direct bi mooy euh, discussion bi nga xamante ne fa ngeen mën a jaaree bind fa euh, seen message mooy commentaire yi su boobaa dinañ leen ko mën a jàllaleen di leen ñaan à chaque fois rek ah, waxtaan wi su dooree su leen ñëwee rek teewee ko dañ leen di ñaan ngeen di bës bouton j'aime bi ndax loolu mooy tax vraiment live bi di am sécurité ndax soo leen déggee sécurité mooy euh, ci fan ñu ñu génn nag bëri na ay attaques yi nga xamante dañ koy jëmale ci chaîne YouTube yi maanaam di ko signaler noonu bañ a amati doole di émettre wala di def ay live te xam ngeen ne loolu moom euh, suñ ci demee rek daanaka dañuy amee loraange moo tax saay suñu dooree waxtaan bi rek yéen ñi nga xam ne ñi seetaan waxtaan bi dañ leen di ñaax di leen ñaan aussi ngeen di bës bouton j'aime bi ndax loolu itam dañuy dooleel waaye itam day tax live bi gën a sécuriser ngeen di mën a woote di euh, joxe seen xalaat ma fa jaare itam di jaajëfal ak ñuy ñëpp ñi nga xamante ci waxtu ñu toll ñoo leen ñoo ngi ñuy euh, seetaan jaaree ci euh, YouTube wala sax euh, Facebook ah, mooy suñu plateforme bi nga xamante ne ñoom la ñuy gën a utiliser pour diffuser waaye itam di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne jamono ñoo ngi ñuy seetaan ci Sénégal wala ci bitim réew ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di kontaan ci yéen ci seen taxawaay ci waxtaan yi nga xam ne saa su nekk rek dañ koy daal di amal ci chaîne bi te nag yem mbokk yi ajuma ñaar fukki fan ak juróom 25 août 2023 ñu dikkaat ak yéen ci waxtaan yi nga xamante ne dañ koy sekk jamono ji may wax ak yéen nag xam naa conférence de presse euh, bi waa F24 euh, nga xamante ne ñoo ko doon amal ci siège bu Bougane Gueye Dany su ci kanamee dañ leen dëgtal lépp ne moo fa xew en direct dara du leen ci euh, rëcc waaye di may ñeen ñeenay tànn sujet yi nga xamante ne moom ngeen gën a moo leen a soxal ci actualité amee ci semaine bi du lundi au vendredi tey nag daanaka am na yoo xamante ne moom lañ leen daal di yaa tànnal bokk na ci sàkkuteef ki nga xamante ne waaye askan wi amaloon nañ ko ci euh, sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou bañ ko demee euh, seeti ni ki euh, keroog moom mi wax ne naa waslu àq ci mbir mi ndax am ngeen yaakaar ne jamono ji fii fi toll ci réew mi ñi nga xamante ne ñoo yoon wàllum yoon ak yoon la rawatina président Macky Sall mi ñu wax ne mooy njiitu réew mi dina nangu sakkuteef goo nga xam ne sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou dina ko ko def ci waslu àq gi nga xamante ne moom wax na ko ñaareel ba <clears throat> mooy euh, niki démb jot nañ ñoo xam ne ne euh, Juan Branco bokk ci avocat yi Ousmane Sonko xamoon ngeen ne ñëw na ci réew mi ñu daal di koy euh, teg loxo ñu def benn fan ci kaso laata ñu koy delloo mu ñibbi ci réew ma nag ñun ñu ne ñoo ko may loxo daal koy dugal ci réew mi bokk na ci ñu ne ay ay complice am am na ci mbër mu siiw moo xamante ne teg nañ ko loxo muy wuyoo ci turu Aliou Diomaye Diouf xëy na xam naa nag suñu ne Aliou Diomaye Diouf ñu ci bëree dañ naan mooy kan waaye ñu waxee usine doole mooy mbër mi nga xamante ne turu mbërëm bi nga xamante ni moom lañ gën a xam moom jamono ji aussi nee nañ euh, teg nañ euh, teg nañ ko loxo mook ki nga xamante ni moo di euh, euh, monsieur Lo Lo nag moom bokk na ci adjoint maire euh, bu bu Sangalkam bi ñu ne moom moo doon denc ki nga xamante ne moo di Juan Branco moo moo ko wutaloon ay appartement wutaloon ko dalwaay ñoo nee nañ moom itam am na moom lañ daa jàpp ak Mamadou Diop Mamadou Diop itam moom inspecteur la de impôts donc ñett nit ñu bees jot nañ leen jàpp ci mbir mi ci ni nga xamante ne noonu la Juan Branco duggee woon ci réew mi ak ni mu fu nekk woon yëpp nee nañ ñoom seen loxo setul ci ci euh, yëf yi beneen bi mooy BRICS nag BRICS suñ ko waxee benn organisation la boo xamante ne daanaka euh, pays émergents yi ñoo ci ñoo ci daal di nekk waaye nag ña ko sookee bokk na ci dëkk yu mel ni euh, Russie Chine ak Afrique du Sud ci Afrique bokk nañ dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo nga ca kuréel googu nga xam ne ñoom li def jàppalante ci seen miir di la balante koppar ah ñoom nag dañoo ne woon Afrique du Sud ngir amal fa ab sommet sommet boobu nag moo tax président Macky Sall ba ko Sénégal dem fa daanaka ba mu fa eggee sax moom mi lay président Macky Sall teer ba ca war defuñu ko ko loolu benn la ñaareel ba mooy sàkkuteef gi mu fa yóbbu woon maanaam Sénégal mi nga xamante ni pays pétrolier la ñu jàppee ko pays euh, en voie de développement maanaam pays émergent ñu daal di koy dugal ci euh, kuréel googu mu mën a bokk ngir rek comme comme moom gën a mën a suqali ko loolu nag dañ ko ko daal lànkal donc euh, dugg-dugg Sénégal ci Brexit bi ñoom njiit ña fa nekk lànkalal nañ ko ko waaye am na ñaari dëkk Afrique yi nga xam ne ñoom nangul nañ leen seen dugub mu doxale ci réew mi wàllum démocratie ak itam économie nga xam ne jàpp ne normé lu ma waral li ni mel donc mbokk yi tey bëgg nañ cee waxtaanee ci suñu émission kaddu askan wi di ci xaar seen xalaat jaaree ko ci 77 810 90 90 régi soo nekkee am na ko bëgg bokk rek ah mun nga ko mun nga ko dugal rek ñu ñu door waxtaan ak moom salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na ngeen def ñu ngi bu baax zorom ñoo ngeen def ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi leen ni siyaar di leen siyaar tawaar kon kontaan ci yow. yal yàlla kontaan ñu ngi lay ziar bu wér. amiin amiin merci beaucoup. waaw waaw di sant bu wér taxawaay bi macha allah rabbi. merci. <laughs> Eh, comme ni ma koy waxee rek zone wax dëgg yàlla senegal fi mu toll nii nit ñuy jaaxle nañ tiit nañu. Mhm. wallahi yàlla xam na ko jaaxle nañu tiit nañu nag. Mhm. tiit ñëpp tiit nañu même ñi ne fii si. Eh, diaspora bi ñëpp ñëpp a tiit waaye nag mhm. ñu ngi yaakaar suñu boroom yàlla mi nga xam ne tas yaakaar yàlla yàlla dimbali xettali Sénégal génn ko ci guute gi mu nekk amin amin amin ci ci daraja yonent bi amin amin zorom mhm. wallaay maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla dee ko dénk di ko dénk jullit yi déglu yépp mhm. ma ni maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di ko dénk yow di ko dénk jullit yi déglu yépp <laughs> effectivement alo oh malheureusement je pense qu'on a quelques soucis avec euh, avec la li oui <coughs> waaw ma ni doom yaa ngi may dégg mhm. ma ni jàpp naa ni àddina bépp ñu ngi dégg ma ni ñu ñu ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dénk mhm. nan dellu ci ragal yàlla Sénégal mhm. fi mu toll nii day na waar yàlla am na ba jàmm yoo xamante ni wallahi baaxe na leen baaxe boo xam ne lépp luy nar a ñëw ak luy nar a xew dinañ ko xam mhm. Sénégal nag fi ñu toll nii dañoo toll si maanaam lu euh, euh, ñu koy waxatee sànni tàccu lan nekk ni sànni tàccu maanaam loo xam seen diggante loo xam suñu borom da leen mayoon ay chance di leen may ay chance ba mu des benn chance boo xam ne nag ci leen nar a jaaree baax ba faw wala ñu mhm. jaare fa xalaku ba faw nag tey nag yàlla rus na ci ndax xam nga lu tax ma wax la ko nag bu am na ñu seen xel gàtt dañuy wax ma kii lu muy wax nii sëñ Mountakha taxaa ngi fi sëñ Babacar Sy Mansour mu ngi fi si yàlla ñu ngi fi le eh, kee hmm. sëñ Mountakha ak tedd gi mu tedd ak mag as bi mu toll yëkkati xéewal gu doy ni tàndarma nga xam ne yonente bi keroog ba muy dugg Medina moom lañ ko teeroo hmm. taraxal badru alayna ñu teer koog tàndarma yi mu jël loolu maanaam ñi amul kës fu rek ñoo xamul sëñ Mountakha hmm. li allo. waaw ma ne ñu ni dañoo gàntal ni. tàndal ma mhm. boobu eggul hôpital pour Ousmane Sonko mun koo jëfandikoo. Mhm. ah kon nag sëriñ bi la ko waroon ak sénégalais yi wàccoog naan ñoom. Mhm. te it jëfee na sunna te jëfe na baatin boo xam ne daanaka ñi ñi xamul ñi am baatin mënuñoo xam ne sëriñ bi baatin la jëfandikoo. ak nu mu mënoon demee waroon nañoo bàyyi tàndal ma googu mu dugg Seydina Ousmane jëfandikoo ko ndax mbir la. du Ah, léegi léegi léegi soo ma mayee man fi ma la bëgg a laaj mooy. waaw maanaam ni réew mi nu mu nu mu tëddoo nii administration pénitentiaire euh, ak euh, ah. ni nga xamante ne noonu la ñuy noonu la ñuy euh, dencee ñi am dëgglante ak yoon wér-gu-yaramam Ousmane Sonko ndax waruñu fa woon xool man foofu lay waxee waruñu fa woon a xool ngir rek au moins ñu euh, même pas may euh, sax ñi nga xam ne ñoo demoon Touba ñu gis Ousmane Sonko waaye may ko tout simplement benn liberté provisoire boo xamante ne xëy na mën nañ cee am ñaar ba ñetti weer yoo xam ne nee nañ dañ ko ko may mu dem faju ba wér comme ça su ko defee ñu jublu ci mbirum àtte. waaw waaw waaw loolu mooy loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg loolu maanaam euh, maa ngi gis yeneen tele démb maa ngi déglu beneen Abdou moomu day wër tele yi rek jàlloo maa ngi ko dégg muy dugg ci beneen tele ci ci ci euh, trans Tandiala oh malheureusement. moo ne ci dëgg te yéen a ngi wax te yàlla rek tax. Mm-hmm. te yéen a ngi wax te yàlla rek tax. Mm-hmm. ñu ngi naan Ousmane Sonko Abdou Abdou Diallo xam nga ko sa waa ji ne fii Italie mu ngi dugg di wax te mhm. eh, Zoram. Mhm. maa ngi dimbali sama bopp nee ko mu mu bàyyi Ousmane mi mi mi mi wallaay dama fëggoon day wax nii rek ruube. mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg soxor la. waaw nee ko na bàyyi Seydina Ousmane te muy waxal yàlla mu ngi dem ci beneen télé di wax ni Ousmane Sonko lu tax ñuy dem di ko ñaanal ci xalifa bi pour ñee ñaanaluñu Ousmane Sonko pour mu génn Ousmane dafa wéradi maanaam dañ koo téye ba ab fu lor fekk ko foofu. Mhm. loolu la ñuy ñaan pour mu ba takkal xiif bi mu doon nekkee waaye ñun ñaanuñu ko. pour mu génn wala mu ñu ñaan ñu ko pour bàyyi Cheikh Bara Ndiaye ak ñoom Abdou Karim Gueye ak ñoom mhm. Cheikh Omar Diagne ay ani anitan déedéet mhm. ñoom Ousmane moo leen gën a bañ ñaan gi ndax moom injustice moom lay xeex mhm. xam nga ku ragalul yàlla zorom Ousmane Sonko li mu wax nii déclaré ko deux mille onze ba léegi bu fekkee nit doyu la nit keneen dootu la doyati ba yomal xiyaam te billahi lazi la ilaha illa huwa solom maa ngi lay giñal ci yàlla xamoo ma xaw la li xanaa sama kàddu rek ñi ma xam ñoo may xam mais billahi lazi la ilaha illa huwa bis bu Ousmane Ousmane Sonko bis bu rëccee waa Sénégal mooy xalaku nan ba yomal xiyaam dootuñu gisati nit ku nit ku ma loolu maanaam benn cent ans yu ne siècle bu nekk benn yoon la ko yàlla di génn mooy nit ku war a ñëw di mbali xeetam te mhm. waaram xeet bi yàlla du jékki-jékki wàcce ko de xeet waaye dem ba xam ne kat ci leen yàlla teg ñu ngi leen di nattu mbiri metti na xeet wa seen bopp mànkoo yàlla ne du ma soppiwu xeet lu dul xeet wa danoo jug pour soppi seen bopp xeetu mhm. Sénégal ñoo dem ba xam ni Macky Sall mi fi nekk arrangé wu leen li muy bëgg indi ci réew mi arrangé wu leen mm-hmm. ndax góor jigéen ñun bëgg a euh, voté euh, ensemble bi ak yeneen ak yeneen ñoom imam Alioune Badara Ndaw wax naa ko seen rajo boobu Sénégal gépp ameel nañ ko xàq mm-hmm. pour baalu ko dégg nga nitu yàlla yaa ngi dem fan yee rek maa ngi doon wax wax naa foofu seen rajo bi ni am na mbugal mu yàlla naroon a indi ba ay nitu yàlla jaayeen sacrifice nañ dem jël loolu pour dem te wallaahi waroon na ñëw kon su ko fee nanu Ousmane Sonko war a bàyyi mu dem këram <laughs> oh malheureusement ay quelques soucis avec la ligne euh, lii moo tax gars yi ah saa suñu dooree vidéo rek dañ leen di ñaan ngeen di euh, ngeen di like allo. allo. oui na ngeen def. sant bu baax.